Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. salaamaaleykum mbokk internet yu Setsima TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag euh, bu ngeen ñu gisee euh, fii ñu nekk mooy euh, kër baay Fall bu wéri wéri Baye Fall bu wéri wéri la ñu ñëw seet si tey ñu gën koo xam ci gay gay Baye Fall ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen bu baax waaye waa Setsima TV. leen bëggee bu baax di waa Sénégal yëpp di nuyu sama fans yeeg sama ñi bëgg ak sama am di jàmm yeeg sama xarit yeeg maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf Baye Fall wéeri wéeri bu ñu euh, démb la ñu gis ci internet bi ak ci àdduna yëpp vraiment ñu gontoo loo xamante ne bii ba tey jii sax nu xëyee ko. naqar ci xol yi que ni Baye Fall dafa am tawat joo xamante ne bii tawat ju tiis la ci moom et mu yàgg ko woyaale waaye euh, sénégalais yi di ko joytu ku ci nekk di ci wax mais li man sama question bu njëkk Baye Fall mooy tawat ji nga xamante ni bii yaa ngi ko doon woyaale depuis combien de temps la kañ nga tàmbalee yëg tawat ci sa yaram. ñaari at ak nangam ci ginnaaw. te xam nga jàngoro moom bu wérul rek fa mu jëm du baax. jàngoro bu wérul rek fa mu jëm du baax dama naan dégg mag ñi naan dañ koy weer. waaye boo dee borom sutura doon gor doo ko gaaw doo ko weer mbaa doo ko gaaw weer loolu rek rek mais yàgg na de du bërki démb de. kon Baye Fall bi muy def bës di tourné ci wiiri wiiri ñu koy xam sénégalais yi dëgg muy bëggal sénégalais yi mu ngi doon wéyaale tawat ji. Euh, waaw ci benn instant bi euh, ci at mi mi mujj ci wiiri wiiri yëpp am naa ak jàmm ngoro hmm. ba jamono bi ngay yor welo bi di ko dawal ba ñëpp. bi ma yor welo bi di ko dawal ak. jamono bi may war moto bi ko gaa rek benn instant am na ci instant boo xamante ni maa ngi woon ak problème bi. d'accord alors. Euh, xam ko ci man du yombul. Euh, dañu gis démb nga wax ne yow da nga doon liggéey ay pono. ñu lay ñu lay ñu lay fay donc par quinze minutes rek nga doon liggéey di ci fayeeku xaalis bu bëri Baye Fall sa tawat ji fi mu nekk nii mënatoo liggéey ay pono donc mënatoo def lu bëri mais ban moment nga jël décision faju wala yàgg ngaa faju yàgg naa maa faju man mi leen jaay sama terrain kay jaay samay bien jël sama moto jaay euh, yàgg na maa faju yàgg na maa faju ci ci wàllu maaman ak wàllu tubaab deux semaines rek daanaa ci jënd ci tuufaay loo xamante ni jage na soixante mille francs yàgg na ma faju li ma fajoo nag ba nga xamante ne que amatuma lu ma jaay di ko fajoo ah, ma dugal loxo dugal tànk am naa xarit def na ci li man Sénégal ñu ci bëri jàppale nañ ma ci mais jàppale ba léegi doyul ndax koo xam te ni cent mille francs koy fay boo koy mën ay junne ki dix mille francs moom doo ko faj kon mën nañu wax ne Baye Fall activité am yëpp dafa taxaw fi mu nekk nii joué tul théâtre mais aussi defaratul pon. waaw tànk fajoo ma dul ma joué théâtre hmm, euh, euh, euh, bu ñu déggee sa sa sa tawat ji déjà bi nga ko annoncé ak léegi coow li nu mu baxee Sénégalais yi ku ci nekk naqaru bi muy naqarlu tawat ji et puis euh, est-ce que mën nañoo xam ne sa mbokk yi nga xamante ne bi yéen a bokkandoo woon di jouer euh, wiiri wiiri rek ñoom aussi seen réaction bi ñu def que ñoom mosuñu yëg ne da nga tawat. Hmm. Abidjan mi ma daan jàpp ci sama loxo di ma woo ma de moom yëgoon na ko moom fu ñu moom ay bu guddi timis du ma gis guddi gi moom moom ma daan woo ma yëgoon na ko de Abidjan maa ngi koy sant bu baax moom de yëgoon na ko ñi ma daan fekk tournage itam di fakkastaloo seen i période bii Kébé cameraman de xamoon na ne Baye Fall gis. ak ñi nga xamante ne ñoo doon taal lumière yi eh, ak ñi nga xamante ne daanaa leen fekk ñuy tourné xamoon nañ ñu day amoon naa problème bu bët. Sanex dafa génn def sotti mu ne moom mbalak la ko jàppe woon parce que. waaye day moom moom mu moom laa yaakaar moom koy mooy mooy mbalak moom laa yaakaar ni moom mooy mbalak parce que dégg naa ko mu naan Baye Fall dafa def demi tour sur la route ci autoroute à péage yooyu waaw ko kay kuy kuy jaawale sens kay ko koy def gisoo kuy jaawale sens ci tëri jaawale sens kay ku koy def gisoo kon kay waroon naa waroon wërta wax sax naan ay yëguma ko woon ak yooyu du woon loolu man sama digganteeg sa waay ah, daa weesu ci ay Baay Faal yëgaluma ko nanga moom lu na ci moom xam lu na ci man xam na ko na ci man xam na ko man newuma wéeri wéeri liñ ma ci doon jox amul njariñ dafa mënutoon a faj samay problème loolu laa wax ndax dégg wax bu baax xaalis amul benn bu bon ñi ma teral ci wéeri wéeri bari na mais kañ nag kan lañ doon teral ci wéeri wéeri Baye Fall mu mu loon talent génne nañ ma ci film bi bu yàgg dama carton def lu leer bi naan ay boo amuloon boo xamuloo xaw boo boo wéeri liñ la ci doon fay danga ah, da ngaa kii non non non nangu nañ ni li ma doon joué dafa neex bu ma ko joué wul mu neex ñu génne ma ci film bi bu yàgg kon li ma leen doon jariñ lañ ma doon jariñ man kaana lillaahi kaana lillaahi lahoo dama leen doon liggéeyal ñu may fay la ñu man ma d'accord ca ak ñoom yaa ngi dégg kon wax boo koy wax danga koy calculer man awma lu may tiit wala lu may ragal ci àdduna awma ko moom du maag moom tooguma fenn naan ay la neex def ak lam ma wax non moom man du man ak moom du dëgg man man ku ko respecté laa xam na ni dama ko respecté te maa ko fuuf te fu ma ko fekk jox ko cëram ba mu mat kon man jàppe ko sama frère du maag moom ñoo war a wax man dama ni sama feebar ñi ma war a jàppale te ma nekkoon ak ñoom bu ñu ma jàppale woon kon sama feebar du yegg si fii loolu laa wax balaame ma kenn waxuma kenn ñoom samay nit lañu yu démb la ma doon wax démb ak bërki démb tey jii laa ko gën a wax samay frère lañu samay xarit lañu bu ma neexee ñu yoreel ma sama alal ma bokk ak ñoom bu leen neexee ma yoreel leen seen alal lekk ko dara du ci dikk. est-ce du loolu moo tax mu riposte aussi le fait que nga ne wiiri wiiri yoreel nañ la alal duñ la fayagu. non non waxuma wiiri yoreel nañ ma alal de kon kay ñu fay ma ko. kenn ci ñoom acteurs kenn ci ñoom acteurs ku ma ci xam na ko bu ma xam na ko. Hmm. ki may wax bu ma yorelee xam na bu ma yorelul xam na ko mais wiiri wiiri film ba jeex na la ma seqoon ak ñoom jeex na. defaat nañ fi ay yeneen saison yoo xam ne contacté wuñu la aussi. Ah, waaw si ma leen itam de woowu leen ñu leen damaa bëgg a tourner de nañ ma wooye woon ne ma ñëwal tourner wiiri wiiri buñ ma ko woowaate woon ma dem woowaate wuñ ma ko bëgguma tourner dew ma te woowu leen. du ma topp kenn pour mu jox ma ma tudd déedéet xalaatuma ko ci sama àdduna man du ma tollatuma foofu <laughs> fi gars yi tool tool naa fi te du ma xale bu ndaw ku bugg ku ma bugg la woo bugguma laa bugguma laa wuyu man dong euh, nga def declaration que da nga feebar Sénégalais yëpp yëgandoo ko euh, est-ce ñoom ci sa ay frère kenn jël na téléphone am woo la ne la Baye Fall kat mas coono wala lii dinañ ci taxawee nii. wala doonoon wax ji. gis nañ ma def sama déclaration. ni ko waa Thiès defee Talla Sylla maire ni mu wooyee nit ca Thiès ni ko woowal baay Fall lan moo ko dal autorité ya nekk Thiès nañ ma wooyee téléphone dañoo bëgg a seet seeti Baye Fall ndax yaa ngi Thiès fan nga nekk ñu seet si la ndax yaa ngi sa kër dañ la bëgg a indil xaalis dañ la bëgg a indil lii dañ la bëgg a euh, ñëw ndokkeel si la mastaw si la mën leen maa ngi Dakar xam nga la doon kaa yoonu carte gi artistes yi Thiès yu ci bari woon nañ ma téléphone lii boo ñu ko waxoon jaral nañu ñu jaay suñuy terrain jëf jaay suñu yëpp kenn du ko ñu faj la benn Bella Sène wax na ma ko du dëgg tak moo gën a nekk xale ca artistes yi ca Thiès mhm. Baye Ndiame Sène wax na ma ko keneen noonu keneen noonu li doonoon sama diggante ak ñoom woo ma Baye Fall fan nga nekk moom am na ci man lu nekk bu ma noon kaay wuy si maa fuuf ma wuy ma wuyi maa ko jox cir boobu boo neexee da ngay ginaaram moom nenu ma kon Baye Fall fan nga nekk ma ne maa te loolu la ma daan def Baye nekk ma maa ngi nii du ma nuyu sax soxla naa la Baye Fall yaa ngi dakaar parce que moom maa koy dajji fu ma ko fekk reetaan loo ko ba muy raam yaa ngi dégg soxla ma Baye Fall lan la sa bët yi dafa gën a garaaw ah ñun de dégg nañu ni léegi lu tax ngay def déclaration te woowoo ma am na droit boobu ci man. ni ma Baye Fall yow waroo def déclaration moo fi ñëw noon sa sa rakk nekk Sénégal gi doon sa frère ngi dugg ci lii loolu la ma war na yedde ak lu tax nga def déclaration mais toog ci télé bi naan dañ laa influencé man kan moo may influencé di ma dóor ci kaw nit wala mooy féng ci nit wala mooy jaxasee nit non tollu ma foofu man dama am problème mi bët ak jaxase bokkul man dama am problème mi bët feebar moom bu ma yërëmul ndax dem seete leneen man lii ma dal teguma ko sama bopp mën na dal ku nekk mën na dal ku nekk teguma ko sama bopp bu ma sañoon du ma dugg ci ay internet ak ay nàngam kon bu ma jaaxlee ba def ko bu bu amee koy kaas xam nga loo ma war a wax ci biirum néeg kilifa tey woon na ma ca Thiès ni ma Baye Fall lu tax ngay dem ndakaar dafa def ay déclaration te waxoo ma ko ma ne ko maa ngi jégalu. parce que dëgg la waxu waxuma ko kon kooku sama kilifa la mais loola yoonu wax ji Baye Fall lu tax ngay génn ci télé bi di wax te ñëwoo ci man ba ma tële loolu la ma war a wax te man fi ma toll du affaire u cinquante mille ak cent mille samay bët ñoo nar a yàqu samay bët moo nar a yàqu du ma fi xaar koo xam ne dama lay woo téléphone doo ma jël yaa may dégg. man du ma xaar koo xamante ni que dama lay woo téléphone doo ma jël te boo ma soxlaa woo ma non dama la fi naan ñukk nu yàq bu naqari dem seeti leneen te damay am leneen barki Cheikh Ibrahima Fall damay am leneen man bu ma la dee woo téléphone sax nga bañ maa jël damay yaakaar ne sama soxlay bopp moo tax nga bañ maa jël même boo ma rappelé am na ñoo xam ma rappelé du ma leen wuyu parce que damay loolu laay noonu lay loolu lay dund. dama yàgg am fukki junni liggéey fukki junni lekk yàgg am liggéey fukki junni naan yaa ngi may dëkk kon man ñàkkuma fayda ñàkkuma jom ragaluma as gor as gor dong la man a doon respecté naa Sénégalais yëpp respecté artistes yëpp artistes yu mag yëpp ñu ci bari gis naa seen appel mënu ma leen a jël parce que ni may woyoo téléphone bi fi mu nekk ni moo bari ñëpp yéene nañ ma jàmm. mais sa frère yi ba léegi déggoo ci appelu kenn. mooy ma bokkal. waaw ñoom waa wéeri wéeri mooy yow lu ñooy kaas du sawaay gën nee na déggu ko du soso du du du kenn woote soso yu bokk yoonum néew ci soso yoonum néew ci ki génn na yërgul sama feebar laa wax te ñu tama daan fakkastale daal ci kaw maanaam bàyyi defal ndànk doo gis kooku moo nu yëgal sama feebar danaan declaration bi ci ci ci ni ko ñëpp yëgee la ko yëgee waaye sama feebar moom loolu day wax rek. Baye fi mu nekk nii lan mooy solution bi parce que sénégalais yi aussi mën nañu am yéene ci yow ñenn ñi comme ni nga ko waxee. solution bi mooy ñu faj ma loolu laa bëgg ñu faj ma ñu faj ma lay ñaan sénégalais yépp képp ku ma mën a dimbali ba mu dellu. lan mooy sa dernier euh, kàddu kàddu daal ku yaakaar ni dama laa jàppal dara jàppaluma kenn dara ku yaakaar dama laa mere merewuma kenn ku ma faj. yàlla dana ma wéral ku ma fajul yàlla dana ma wéral ndax yàlla laa dégg samay loxo yaa ngi dégg awma ci kenn baatu bu ñaaw bu may wax jublu ma wax kenn baat bu ñaaw man sénégalais laa artiste laa comédien laa comme ni ko maire Sène waxe Baye Fall ba doon ñaari fan nit bégal na ko sénégalais yi ni ko Baye Ili waxe ñaari fan bégal naa ko sénégalais yi ni ko artiste yëpp waxe nañu takku man ko fexe nuñ faje sama bët yi loolooy sama yitte waaye ay xuloo ay yaa wax lii ay yaa wax lee kee wax lee man dëgg dëgg yooyu intéressé wu ma xuloo taxul may wax li tax may wax mooy nañu man ko doon benn fay fexe faj sama bët yi man moo ma gënal fuuf ci naan ma ay yëguñu kook yëg nañ kook nangam nangam ak yooyu lu dëgg maa ngi woon ak ñëpp sénégalais yëpp maa ngi leen ciy woo ndax sénégalais yëpp ñoo may jàppale pour nit ne ci àdduna bi war a ma téléphone am ay yéene ci man am na ñoo xamante ni nag euh, ñu ngi ci di xool naka laa ñuy def ba ma li may wut ma bëgg bëgg ma am ko yàlla na yàlla yeggale yéene yëpp. fàttali aussi ne li liggéeyu actuellement euh, sa mm-hmm. njaboot yi dañu soxla nga ñu. ñuy ci réseaux sociaux yi yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu télévision yi di nuyu réseaux sociaux yëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp aada moo sax. defal na ma vidéo am yéene ma faju kon kooku ci social lay dox ndax bi mu gisee ma toog ci tele bi di jooy rangooñ fa muy jóge sori na aadamoo defal na ma vidéo bëgg ma faju te billaahi yéene boobu ma am ci man noonu dana toogaat ni Baay Faal faj nañ ko dëgg mais xanaa nga fàttali numéro téléphone bi ñu la mën a jotee. numéro téléphone bi ñu ma mën a joxe jotee mooy 826 90 96. 77 826 90 96. merci beaucoup jërëjëfati. Euh, Euh, Baye Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax junior donc euh, gis nañu nag euh, vraiment déclaration bi mu def di fàttali rek ni mbokk yi li taxoon ñu ñëw si mooy feebar bi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla dal na ko fi mu nekk nii ay bëtam gisatul donc nañu ko jàppale sénégalais yi ak diaspora bi.